عليكم أنا تود مصطفى جن دي بريزان وما هو رحمتي سرين منتهى مبكى خلي جنرال ديمورت يلا يوك يلا يوك فنام أكاد نام أكبر جيرام مو مو بوتي 18 جي 2018 واخما نما داف ما بغا دينك لغي بيغا خاني مومن داف ما هو رحمتي ما أمتي مبكت لول mu rëy rëy ndaxte daf ma bett maa jàppoon ne loolu sax mérité ma ko waaye mu woo ma ne ma ñëwal nu ànd liggéeyal seen Touba ca laa dal di tàmbali mu boole mag ku ñu wax si Moustapha Moussa mu nekkoon ca équipe ba fi nekkoon ak si Abdou Khader Mbacke moom mu ànd ak ñoom ñoo ànd yi liggéey ba loolu amee ma dem ca siège Maou Rahmati fekk fa administrateur ba nuyoo moom saafonteeg moom ne ko kat man sëñ bi dénk na ma liggéey bi waaye comme ñëw naa dama bëgg ànd ak yéen ñi fi nekk comme ñëpp ay taalibe lañ ñu ànd liggéeyal suñu Tuubaa moom it wax kàddu yu rafet tàmbul liggéey ñeenti fan wala juróom ñu woo responsable yi nekk ci Maawu Rahmati moom it ma wax leen loolu ñoom it am ko jël te ñoom kàddu wax loolu nu ànd liggéey xam nga bi muy ñëw daanaka euh, euh, màggal gi ñetti weer moo ci desoon wala ñetti weer ak genn wàll booba commencé nañ préparation yi ñëpp ñu nekk ci di dem ci réunion yi Njaaréem ak Dakar ak Touba yëpp ma xam ne boobaa ñëpp ñu ànd ko ak administrateur bi ak ñi fi nekkoon ñuy liggéey di liggéey ba yàlla dogal ñu génn dem ba yegg ci màggal gi génn ci màggal waaye nag loolu ñu la liggéey yëpp nag teewut maa ngi observé maa ngi doon xool nay a Rahmat di doxe maa ngi ko doon xool di ko noté ci sama niveau moo tax bi ñu ci yeggee it ma jàpp ne fii du du ma ne li fi nekkoon baaxut wax di sëñ Cheikh Mbacke Aliou ma fa nekkoon liggéey na fa liggéey bu rëy rëy ñëpp gis ko waaye liggéey boo gis moom it am na mees na ko jéem a seet noo xam ne pour améliorer ko gën koo gën koo gën koo baaxal man loolu dong moo ma yëkkati ma xool ne man Touba laa nekk. am naa fi ay bureau bu ma xëyee dama fay dem maag euh, liggéey fa di fa recevoir ay nit bu réunion amee mbàkke wala feet ma dem wala ma am ku ma yebal donc fi laa nekk loolu nag bu ko amee daanaka postu administrateur koo xam day nekk sama digganteek ak responsable yi pour man jëru ko jëru ko léegi man bu ma soxlaa ka finance mën naa ko woo na ko defal lii ma soxlaa ko yor affaire plomberie mën naa ko woo na ko yor lii ma soxla ko yor affaire réseau mën naa ko woon na ko defal lii ña yor branchement yi boobu man forme d'organisation moo ma gën a convenir ndax daf may permettre bu ma joxee instruction ma mën koo contrôler ma xam ne kii laa ko jox bu demandé nan la ko liggéeyee wala waxtu ma ko waxoon liggéey ko ci bu jotee ma mën koo wax directement boobu formule man moo ma gën a adopté man ah. waaye du du loo xam ne personne Malik Bayane la wala kenn mais man maa jàpp ne forme d'organisation bi moo convenir ci sur le plan administratif nan lay doxee deuxième point bi ma bëggoon indi ay changements it mooy affaire financière, financière, yi finance yi bi ma comptabilité bi maa fekk mu centré ko ñu mu nekk autour d'une seule d'une personne Quoi xam il ñi a les différentes caisses les caisses il y a donc buñ paree dañ koy jox ki nga comptable coordinateur bi mon ci moment lañ centralisé wu mooy centralisé de euh, recettes yi mooy def dépenses yi loolu laa fekk pendant trois mois ñu qui gisee ma système boobu moom généralement en comptabilité dañuy séparer caisse de recettes à caisse des dépenses donc mon ne leen nag lii moom dina ma bëgg dindi mu am système boo xam ne moo gën a yaatu ma bëgg comptabilité boobu daanaka doon tourné autour d'une deux personnes am coordinateur coordinateur adjoint man li ma bëgg bi yoon li bëgg mu nekk quatre personnes wala cinq nga xam ne day am différent kii yooyu ba pare mu am système procédure yoo xam ne day séparé wu loolu laa bëgg pour ñu yaxanal la fay dugg waaw pour yaxanal la fay dugg du am gaspillage dara du am du am évasion loolu laa bëgg boo xam ni Maou Rahmati bi mën a jëm si parce que li ma fi constaté mooy lii nga xam ne moom la ñuy jaay ci ndox yi ak li ñuy def ci affaire branchement yi ndox yi mooy fût yi mooy bidon yi mooy sachet yi loolu lépp day dugg ci dépenses yi

waaye bu fekkee day dugg ci ay charges yu bëree bari ba pare ñu dem na jël ab chèque dem di jël ca banque ba lañ fa la xam ne mooy contribution yi taalibe yeeg ak sëriñ seeg dañuy def pour mu war a dugg ci ndox mi loolu pour man dañu cee war a jënd ay tuyau wala bu ñu ko dajalee bu yàggee ñu def ab forage waaye mun ñu koo dajale ay taalibe di ko joxe ak i sëriñ ba pare ñu ko jox aw nit man loolu ban conception boobu man bëgguma ko ma sañoon daal la fa nit ñi joxe muy ca contribution yi Sëriñ Muntaxa ñoom ak ak kilifa yëpp dañuy dañuy toog ba mu yàgg ñu génn dara joxe taalibe yi ñi ne fii ci dëkk bi waa diaspora jaayante yi kenn ku ne la mu tollool loolu nag bu ñu ko joxee ndoxum suñ Touba mi nga xam ne sëñ daf ñu wax fu ñu toll nañ yaatal maa jàppoon ne loolu pour destination moo war a nekk ay investissement yoo xam dafa jëm ci ay tuyaux wala ñu dem ba mën a dayale ba mën a def suñu forage waaye loolu mënuma concevoir nag ñu di ko jël di ko fay aw nit ñoo xam ni am na fa ñu fay liggéey mais am ñoo xam daanaka amuñu fa njariñ man li ma bëgg ñu gën koo réorganiser mooy fii ci kër gi laa bëgg ñu gën koo sécuriser sécuriser ko mooy gën ko procédure yi gën a leer Les deux dugg na fi lay tay bu nit mu ci avancer lo waaw ñu def ay dépenses vraiment dépenses fonctionnement wu Rahmati waaw neewuma waxuma kenn nak accusé kenn waaye dama bëgg man lu leer lu gën gën leer rek la wax waaw man la wessu la wessu ba man à partir du mois d'août nous finir fi ñëwé la wax mais lama jitu xoluma ci waaw lii sax fii même mois d'août bi ba ak septembre octobre newoon naa waaye damaa bàyyi administrateur bi muy gérer waaye nag constaté naa ba gis la ma gis loolu moom bëgg naa koo réorganiser moom ñetti signature la moo fi am léegi man ak sëñ Abdou Khader Mbacke ak sëñ Mouhamadou Moustapha Moussa loolu moom buñ fay génn lu ne signature yu am foofu moom amul problème man koy à l'interne bi laa wax fii foofu moom amul benn problème moom ba boobu chèque bu ko amut mënu fa génn mom poste bi supprimé naa ko la suite nak dañ ko gis bala yag waaw. li li gëna urgent moy li moy rek suppression poste bi pour que man ma nek en première ligne comme ni ma ko waxoon pour mën rek contrôler joxe instruction diko contrôler son bop lolu moy lu urgent li ak tam réorganiser finance yi li reste nak li dess mom ci buñ doxé lay sét li yeneen sur le plan technique ak nangam na lu war def ak yëpp ngi ci. maa ngi euh, gën a euh, kii réaffirmer sama engagement ak def lu ma man li ma sama xel may ak sama kattan pour mission bi ma mun Muntaxa dénk ma réussir ko maa ngi ñi ma ko àndal ñi ma ko àndal yaatu na jàpp naa ña ma bokkal bureau bi ñoom ñooñu comité directeur bi nga xam ne gën naa yaatu comité directeur bi ñoom sëñ Modou euh, Lo Ngaabu ci la bokk sëñ Bas Abdou Khoudous ci la bokk ñoom sëñ Cheikh Anta Mbacke Daaru Salaam ci la bokk sëñ Assane Fall bu porte-parole Baye Fall ci la bokk sëñ Moudou Mahfous Mbacké ci la bokk sëñ Cheikh Aliou mi fi nekkoon ci ci ci la bokk ak sëñ Cheikh Thioro Mbacké ci la bokk sëñ Moussa karam ci la bokk ñooñu ñooy comité directeur bi ñooñu ñëpp lay àndal liggéey ak bu weesoo ak ñëpp rek parce que jàppaan liggéey bi murid yëpp ñoo ko bokk ñëpp laa tàllal loxo fii ñu nekk fii ci biir réew mi ak nekk diaspora bi maa ngi profité di gërëm ñëpp ñi nga xam ñu ngi ci dugal ak soxna yi ñoom soxna astu Mbàkke sëñ Abdou borom dër bi ñoom soxna Gàddu Buso ñoom soxna astu Cerno mënumaa lim ñëpp waaye njabootu sëñ Tuubaa googu nga xam ne dañoo àndaat ñoom ànd na nun taalibe bi liggéey maa ngi leen di gërëm di leen sant